ministre bi nee na auzu billaahi mina sheytaani rajiim di wax bismillaahi rahmaani rahiim. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam. na gannaaw ba mu santee yàlla julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi ñaanal xalifa bi. nee na ñu ngi ñaanal xalifa bi sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru mi toog. yàlla may ko wér guddal fanam. nee na yàlla ko yàlla may wér te yàlla may ko guddal fanam. yàlla na ko yàlla may mu yàgg uuf njaboot. nee na ko yàlla may mu yàgg fi lool uuf njaboot bi lool. ñoo ngi koy jottali nuyoo doomam. nee na ñu ngi koy jottali nag nuyoo doomam. xaritam xaritam. le président de la république Macky Sall. nee na le président de la république son excellence le président Macky Sall. ñoo ngi sàkku si moom tamit ñaan. nee na ñu ngi sàkku it nag ci Serigne Mountakha mii ñaan. xam nañ ne musul jóg ci ñaanal réew mi musul jóg ci ñaanal euh, président la ministre bi na xam nañu sëñ Mountakha mii musul jóg ci ñaanal réew mi waaye musul jógit nag di ñaanal son excellence président Macky Sall. dañuy feddali rek ñaan. nee dañuy feddali rek ñaan. ñu ñaan ko mu ñaanal président de la république ñaanal réew mi. mu ñaan la nga ñaanal président la république Macky Sall waaye nga ñaanal réew mi yëpp comme ni nga ko baaxoo defee. nga ñaanal réew mi réew mi jàmm sax fi. nee nga ñaanal mbacke rew mi jamm ji nga xamni bi mo gën lepp te dara gënu koo sax ci rew mi. nga ñaanal rew mi mbass mi gane ci rew mi yalla nako yalla jilé fi. nee mi ngi lay ñaanal mbacke nga ñaanal rew mi mbass mi nga xamni mo gën ci biir rew mi te dëkku fi nga ñaan yalla mbass mi yalla jilé ko fi jilé ko ci aduna bi yépp ci barka khadim Rasul. ñaan bobu nee ñaan bobu nak am nañ ci yaakar bu baax a am nañ ci yaakar bu baaxa baax. benen bi. benen bi. ndaw yi nga ñi nga yabalon nee ndaw yi nga xam yebalon ñu téru leen. ñu téru ñu. ñu téru leen. dara manké wul. nee mbacké dara manké wul. matal nañ lepp matal nañ lepp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. ministre bi nee ñu ngi leen di sant ci ndaw yoy nga xam ñom nga yebalon di leen gërëm it euh ñi nga xam ne ñoo ngank administration bi. ñi nga xam ne bi ñoo ngank administration locale bi. téru nañu fi. nee muy gouverneur ak préfet téru nañ fi ci buntu dëkk ba ba egg si fii ak ñom tay fi ci biir te kanam sëriñ bi. ñooñu ñepp ñu ngi leen di gërëm. nee ñom ñepp ministre bi nee mi ngi leen di gërëm. Euh, beneen wàll bi. nee na beneen wàll bi. dafa am loo xam ne dañ la ci fekk. nee na am loo xam ne nag Mbàkke dañ la cay fekk. mooy naatal dëkk bi mooy naatal réew mi. mooy naatal dëkk bi waaye naatal réew mi di réewum Sénégal. muy ndigal bu bàyyeekoo ci président de la république. ci plan Sénégal émergent. nee na loolu nag muy ndigal bu ko ci président de la république. muy pays émergent Sénégal émergent. waaye nag pays émergent Sénégal vert. Euh, président am yéene bu bëri. nee na président nag Macky Sall am yéene ju bari am yéene bu rëy. am yéene ju rëy. Euh, keroog bu fi jógee. nee na keroog bu mu fi jógee. mu bàyyi fii li nga xam ne Sénégal yëpp nañ ci teg seen euh, seen i bët. nee na mu bàyyi fii loo xam ne bii Sénégal gépp nañ ko teg seen bët. mooy mu sàmm àll bi. nee na moom président mu sàmm àll bi. delloo ko lu mu nekkee woon ci lu mu gën a rafetee ci ay xool. nee na delloo ko ni mu nekk woon ci ni mu gën a rafet ci xool sa bët fu mu rafet xool rek mu rafet lool ci àll bi. looloo yi président. nee na loolu daal mooy mébétu son excellence le président Macky Sall. dañuy am kontante bu rëy. nee na ñu am kontante bu rëy. saa ñuy yabalee ñu ñëw fii ci dëkk. nee na moom Abdou Karim Sall mi ministre de l'environnement saa yu ñu ko yabalee mu ñëw fi ci dëkk bu tedd bii. ciy am kontante bu. moom daal daf ciy am kontante bu rëy. Mbakke dama ciy sawar daf ci sawar lool Mbakke. parce que dama xam ni. ndax dafa xam ni. mission bi ma président denk mission bi ko Sen excellence président Macky Sall dénk. Euh, mission bobu yaa ngi ci joxe ay ndigal pour que mission bobu soti nee mission bi ko président Macky Sall denk xamna ni mbacke yaa ngi joxe ay ndigal ndax mission bobu ñuko denk mu soti mu am ci ndam. lu ñeek mbéy bi ma ñewé fi waxtaan ci ak yow ci walu mbusi yi. bu ñeek bi mu fi ñewé waxtaan ci ak yow ci walu jëm ci mbusi nga ñaanal ñu yalla may ñu ci ndam. nga ñaanal ko yalla may ko ci ndam. Euh, ma ngi lay wax ne. Euh, commencé nañu gis ay résultats yu baax. nee na ci mbuus yooyu nga ko ñaanaloon maam Tinam commencé nañu gis ay résultats yu baax. bi ma ñëwee aussi nee la nga ñaanal ñu ci wàllu reboisement bi. nee bi mu ñëwee itam wax la nga ñaan ko ci wàllu reboisement yi. nañu la wax ni reboisement bi aussi nit ñi ñu ci commencé bàyyi seen i xel. nee na Mbacke reboisement yi it nag muy jëmbat garab nit ñaa ci commencé bàyyi seen i xel. du ma tàyyi di rafetlu saa yu ma fi ñëwee. nee na du tàyyi nag di rafetlu saa yoo xamee ni bii ñëw na fi jàkkaarloo ak yow Mbacke. di wax ne bi may bi may am. nee na di wax nag ni mbégte bi muy am. en tant que ministre de l' en tant que ministre bi ñu environnement. su dugg Touba. suy dugg Touba. ci ñaari voies yi. ci ñaari voies yi. Euh, taar taar ñaari yi. na taar taar bi ñaari yi ba mu keroog président bi muy jëmbat garab ci journée de l'arbre. nee na keroog président dimanche bii ñu génn bi muy jëmbat garabam ci journée de l'arbre. dafa woo ñëpp. dafa woo ñëpp. ci li nga xam ne moom mooy euh, ñu def ay garab ci li nga xam ne moom mooy mbedd yi. nee na président dafa woo pour ñu defar li nga xam ne mooy ay garab ci mbedd yëpp. ñu defar garab ci àll bi. waaye ñu defar ay garab it nag ci àll bi. ñu defar ay garab ci buntu kër yi. ñu defar ay garabit it nag ci buntu kër yi. Lolo lolo loolu loolu moom fekk nañ ko fii ci biir Touba. nee na loolu président santaane te digale ko ci réew mépp fekk nañ ko fii ci biir Touba Mbacke ka sëñ Bamba Xaadim Rasul. ñoo ngi ciy yalla yàlla bu baax nee na mi ngi ciy sant nag yàlla bu baax baax Mbacke. moo ñu ñaanal la yàlla yàlla. baax nee na loolu yow ab yow ministre Abdou Karim Sall. nee na moo tax Mbacke loolu nga def te digle ko fii ci Touba te ku ñëw fekk ko fi moo tax ñoom ñëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla Mbacke yàlla fi yalla bàyyi. Euh, sëñ Abdou maa ngi am bu baax ci Sering Abdul, sering bina ministre Abdou Karim sëriñ bi nee mi ngi am ci gi nga Karim Sall mii nee na mi ngi ci am mbégte bu baax baax dégg nañ kàddu na kàddu yëpp kàddu fa tabaarakallaahu mu mu ne bi mu ko jëlee ci président taxawal ko boppam. moom mii mu taxawal mu taxaw mu taxaw ci taxawaayu boppam. mu ne moom mii Abdou Karim taxaw ci taxawaayu boppam. jottali eh, ndigalal président. mu ne jottali ndigalal président. def ci yitte ju mat sëkk. mu ne def ci yitte ju mat sëkk. li yitte ji def na mu ne li ci mat yëpp li yitte yëpp def na ko. li ci mat a wax yëpp wax na ko. mu ne dégg na ko it bu baax a baax. mu ne loolu mi ngi ci am mbégte bu baax. mu ne du ci dolli yaakaaram bu baax a baax. mu ne ndax loolu njariñal ñëpp la. kon nag eh, yaakaar ko dégg yaakaar naa daañu mbokki mu ne yaakaar na ne moom dana ko dégg waaye mbokki Sénégal yëpp danañ ko dégg noonu. suñu kéem kattan daan ko jottali ba ñëpp mën cee ànd ñëpp def mu ne nii nga xam ne moom la ko ministre bi jottalee moom incha allah dana def yitteem ba ñëpp mën ko déggee noonu def ci yitte. non non non non rek la demee. mu ne noonu rek la demee. mu ne xolam sedd na guy. mu ne ci yitte ji ak taxawaay bi. Eh, mu ne day ñaan suñ borom rek. mu ne rek. muy suñ borom gàttanu ñëw taw féex. mu ne ba ni ko bëggee lépp gën a yomb. mu ne yàlla it defal ñu barke ci yëngatu bi. àggaleel ñu suñu yéene jëpp. mu ne noonu rek la. nee na mi ngi am mbégte bu baax a baax. mu ne taxawaay bi rafet na lool. mu ne mën na sëkkiit. mu ne jërëjëf. mu ne naka jekk xamoon na ministre Abdou Karim Sall taxawaayam ci liggéey bi. mu ne waaye gën naa leer gën naa feeñ ci liggéey bii nga xam ne moom lañ ko dénk. mu ne dool na yaakaaram bu baax a baax. mu ne jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax.